il tire sur le pouvoir chaque ah. matin et tous les de Walf tir sur le pouvoir. ok jërëjëf jërëjëf jërëjëf honorable mais day dafay am. jërëjëf ma ñëw ci on ma ñëw ci ma ñëw ci léegi ñooñu leen kii waruñ leen waruñ leen euh, joxoñ baaraam comme niñ joxoñee RTS baaraam. honorable s'il vous plaît mais loolu ko wax. honorable jërëjëf. bien que yaa ma invité wal d' accord jërëjëf amul problème ah waaw ah euh, ma ñëw ci Amadou Amadou honorable wax mais euh, jafe-jafe yi am ci demande bi d' Euh, demande de manifestation bi far ngeen faussé yéen parce que moom nee na ñett la ñett ngeen war ñoo waroon euh, proclamer ñaar ñoo ko proclamer waaw ak événement yi am am Mbàkke ñëwul ma ci waaw xam nga euh, problème je pense dañoo yegg foo xam ni mhm. les responsables APR ci médias yi ñoom ñooy doyadil seen bopp <laughs> ndax ay kilifa lañ mais gis nañ ni de plus en plus Mhm. xam naa moo tax média boo dem dañ naan la APR mënatuñoo invité ku ñëw. Ah de plus en plus. Ah boo seetee jafe-jafe bi ñuy am. Mhm. pour benn di daganal loo xam ne dañ ko daan xeex. Mhm. ku xamoon Macky Sall bi muy jàppale fii Walfadjri. tey nga gis ko ni mu def Pape Alé Niang ak ba ko Pape Alé di. accueillir lan la Pape Alé Niang Walfadjri def loo xam deux mille événement mars 2012 2011. mais waxal di Pape Alé Niang def. événement mois de mars 2012. est-ce que chaîne yi dañ ko dañoo empêché woon ñu diffuser ko. question rek lañ koy laaj. boobu Macky Sall la ngi fi di wax. taxaw na ci chaîne yi nii ku ma jox mën naa yóbbu vingt mille personnes ñu daaneel nguuru Ablaye Wade. déloger ko déloger ko mën naa conquérir le palais. fii la ko wax wala waxu ko. du mm. kàddoom. Mm. ah Macky waxul loolu. gis nga li ñuy def après bu ñu leen vaaree xale yi nekk mën naa laa tegal vidéo bi nga déglu ko léegi nii fii ma toog. ko. bu ma ko tegee bu ma ko tegee. nga jox ko sa tool sa tool yi nekk siin dañuy waxtaan. da ngay wax ci contexte bi nga xamante ah, ne contexte la da koy contextualiser. <laughs> waa baax na léegi. cest dire que. li ma bëgg a wax foofu benn affaire li ma bëgg a wax foofu. est que c'était le projet de Macky Sall aller déloger Ablaye Wade non c'était pas. un projet non da doon da ko doon da doon nax problème. xam nga léegi en tant que ancien député mhm. wul texte yoo xam ni waxuñu boo ko voté wul mais xanaa bala ngaa ñëw fii yow mi daan déposé il faut jàng nga tuuti il faut yow miy déposé ay manifestation loolu texte yi li mu wax dafa leer dafa ndànk rek nga déglu nag tuuti dafa am préfet dafa ni boo gisee ma tere mitigu Mbàkke mhm. ñetti nit a waroon déposé signé te ñaar ñu déposé mhm. mu ne fu ma teg loolu article quatre vingt bu code pénal buy reprendre ab loi bu yàgg bu quatre bu soixante-quatorze nee na mhm. ku bëgg a def manifestation na nga wax date beeg heure beeg nga déposé ko ñetti fan avant trois jours francs mu sax juróomi fan soo ko natte mhm. te nga indi ñetti nit nee na article code pénal moo ko wax bu renvoyé ci benn loi bu 1974 ñu koy wax loi 74 13 mhm. du 24 juin loolu la wax loolu la bind. loolu waa Kaddu. Mhm. non du question Kaddu sax may ma rek maa ngi ñëw. ko may ma maa ngi ñëw. article code pénal bi mu cité yàlla seede na ni nekkul ci code pénal loolu faux la la. Mhm. Ah usage de faux. préfet bi préfet li mu wax. wallahi article 96. 96 code pénal boo fa mhm. ubbee mën naa génne ko fu la neex na ku nekk tàppe sur internet. doo fa fekk mukk fu ñu bind. na ñetti nit déposé amu ci. mais c'est grave ça. loi bu 74 la maa ngi ñëw administrateur civil. sorti mais bu bokkee affaire bi. waaw léegi maa ngi ñëw ko dindi man bu la neex du Amadou Ba xam nga man. sama problème mooy. da ngeen a dañuy déglu rek. xam nga déjà article 96 bi. d'accord may may may ko mu daaneel on parle de texte na leer rek. article voilà na leer ci kanamu sénégalais ñu xam ne texte la ñuy wax. ñu xam lu texte bi wax. Amadou ñëwal article 93 16 dafa ni la déclaration sera fait à l'autorité administrative chargée du maintien de l'ordre public sur le territoire de laquelle la manifestation doit avoir lieu mhm. trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation jeex na mhm. beneen virgule amu ci lii ma liir léegi kon li préfet mooy article 96 code pénal bi préfet ni dañ cee bind ni ñetti nit ñoo war a déposer xam nga lu tax ñu dindi ko ci code pénal mhm. depuis 74. 1978 mhm. dañoo jël loi boo xam ni pour ay réunion laak manifestation attroupement ak occupation voie publique yëpp yépp loi mhm. bu spécial tudde ko loi ci réunion képp kuy réunion Sénégal ndax ñu différencier kii ngénte xam nga kuy ngénte da ngay parfois da ngay utiliser voie publique bokkook kuy kuy kuy manifester bokkook kuy réunion politique bokkuñu ñu jël ak loi boo xam ne voilà dafay leeral article bi nii ci réunion article 10 déclaration bi benn nit ci organisateurs yi l'un des organisateurs le mmh. prénom de l'un ok ci ñi ko organiser kenn lañ ci soxla comme que kenn mooy def déclaration te mooy signé article 96 ni man jaratul mooy tudd comme que kii def déclaration foofu mu signé hmm. benn nit la mën a doon absolument donc ñett amul amul amul existé wul donc moom moo tey xoolal pour mu interdire une manifestation nga jël article boo xam ni nekkul ci code pénal nga tey ko parce que am na service juridique préfet du n'importe qui nga tere ko sur du faux mais loolu rek mhm. xoolal kañ lañ déposé affaire bi mhm. ak kañ la tontu maanaam tey préfet yëpp liñ décidé yaa li nga wax c'est grave hein? mais mais bu dee am na lu mais li ma la wax mais lii amul c'est la manipulation. dañu nekk seen ma gis nga suba. xam xam nga par exemple. man su ma waxee préfet déglu ma rek ah. Ah. c'est dommage waroon naa indi édition 2022 loi loi bu ñu abrogé depuis 74 déglul nekkul depuis 74 hmm. ki nga xamante ne man leer na ma ne préfet bi judd si ay 74 lay war a judd teg maa déglu ba yow xam nga préfet bi no waxuma waxu préfet soo intéressé wuñu dama intéressé mooy interdiction la manipulation 96 non bi préfet bi nii ñi war a defar manifestation dañoo war a nekk ñetti nit ñu ko signé yàlla seede na ni nekkul ci code pénal ah, ah, ah, leer na li ma wax dafa leer mhm. ma défier nag suba bépp mbàmburu APR mu génne article code pénal bu ne ñetti nit am na mhm. il faut défier préfet kon préfet bi bi muy interdire l'administration moo ko tey mhm. bi mu ko publier ñëpp génn nañ ni ko dangaa juum ministre de moom amoon na ni ah ñii kat li ñu wax xaar ma yëri code pénal mhm. yii def naa toj toj damaa juum mais xoolal manifestation boo xam ne dañ ni foog nga déposer ko fukki fan ak juróom au plus mhm. ñetti fan ci bi gën a néew ok mu bàyyi ba ñu ni suba la manifestation bi mhm. wala ñu bàyyi ba ñu ni tey la manifestation bi à dix heures midi quinze heures ñu jox la autorisation bi à midi kenn du ñëw mooy la pratique normalement yoon dafa ni su dee préfet daf laa tere am nga du droit def recours. ok mhm. mais pour ñu bañ nga def recours. Mhm. da nga ko koy wax fukki fan ak juróom mu denc ko noppi bàyyi ba bisu manifestation bi jot. Mhm. nga ni manifestation bi quatre heures laa koy def mu bàyyi ba trois heures mu soog laa yónnee kayit ni la daganal naa ko. daganal naa nga ni ko lu tax waxoo woon ñetti fan avant. lu tax waxoo ñeent benn. deuxièmement rôle préfet ñetti nit a war a siñe ci xel rek. nga jot ko nga ni ko hey yéen de da ngeen a juum. waaw kaay leen ngeen ñetti lañ leen wax kaay leen ngeen. si ñu deful nañu woon noonu si liste bi. nga xam ni nga xam ni xalaat ni bañ a ñàkkub signé la muy yokk parce que préfet état moo ko fi teg. pas mhm. pour mu faral APR. dafa ni ko yow bokk ak waa APR dara yaa président bokk leen tous. Mhm. yoon lañ la wax nga doxal ko li gën a neex doxal yoon. mooy kii ñëw bëgg a juum nga ne ko déet da juum demal changé ko lii dul dara. ok demal indi ñetti nit. li ma bëgg a wax fii. Hmm. quest ki qui se passe avec le préfet bi def. c'est vrai def nañu recours débouté wu ñu ñu déedéet. Ah xëy na déedéet déedéet. recours bi même procureur général ci procédure bi dafa ni préfet daa juum xam nga lu luy ni problème bi xëy na ni ñu déposé recours bi. yoon ba ñu jël. Mhm. moo baaxul. Mhm. cour bi ni ah. yoon bi ngeen jël référé xëy na liberté la woon yéen ngeen def beneen référé. xanaa boobu seen njàng noo bi. ndànk rek gis nga ay dinaa la wax bi li li li li Macky Sall def ak grâce Wuri Diallo mi daan jaay mi daan jaay garab di nga xam ndax dinga wax wax ju kawe. donc nga ñëw préfet donc amoon na xamoon nañ ni bu recours bi jàlloon day jàll. li fi am solo mooy Pastef président Macky Sall daa am mu décidé lu ñuy woowee épuration politique ni mu amee épiration etnique maanaam su guerre amee président ba jëlub xeet topp xeet wi ni dalee ni faagaagal ndax dañoo bokk bokk ñu diine seen langue ak bi ñuy làkk bokkul ak moom président wala bii bokkuñu ak opinion politique muy waa Pastef depuis Macky président Macky Sall yéeg ñépp ñi ñu faagaagal ñàkk seen bakkan ci wàllu politique parce que militant wala sympathisant Pastef mhm. képp ku tëdd ci kaso bi depuis 2012. Mhm. bi Macky Sall ñëwee <coughs> léegi pré euh, Pastef nga bokk ñun rek ñooy dajale suñu xaalis mu ne duñ ko dajale. Mhm. le seul président boo xam ni suñu la convoqué tribunal ñeenti fan. moo waroon ñu téye Hannibal. day dinaa ñëw ci Hannibal. day tëj sa koñ. bi nga dëkk quartier bi lay tëj. ni kuy dugg ci quartier bi da ngay joxe ab kayit ñu ne ko lu tax da nga koo woo ñetti fan ñetti fan avant nga tëj quartier bi. résidence surveillée. si xale yi seen njaboot yi. Mhm. bëgg a génn yéen ngeen di dox moom ñu ne du dox. Mhm. nga jël arme jël ay blindé di topp benn nit. Mhm. blindé yoo xam ni tey. bu lamb amee nee na projet taal réew ngeen am. moo tax bu lamb amee ñuy agressé nit ñi. doo leen gis blindé bu nekk tabaxoon na école. blindé bu nekk tabaxoon na kii. dégg nga tey Jeune Afrique génn na. nee na Macky nee na après 2000 ci ci at yi di ñëw ñi mu yaakaar ñëpp. Jeune Afrique génne ko ay militaire lañ yaakaaratul peuple bi pour toog. Hmm. ñëpp xam nañ projet boo hmm. gisee mu sonal Pastef te man damay ko ci sant. Hmm. li nga wax c'est grave ah Amadou aussi. non mais président nga ne yaakaaratul askan wi. yaakaarul ak militaire la yaakaar honorable mii toog déglu ma honorable mii toog. Macky Sall la gën a xam ni honorable mii ministre am yii DG mii bu coow di amee ku nekk ci ñoom yaa nga Dubaï ñi am mbokk. Ah ñi si des ña nga Gambie commencé nañoo wut ay kër Guinée wala mm. feneen parce que xam na ni ñii ñi ko topp intérêt lañ ko toppee te xaañ ma xaa xeeñcu nañ ñi wallaahi xeeñcu nañ ñi ci suuf la jëm may ma c'est des enfantillages xam na ni ñii dañuy daw soo gisee mu ne woon li fi am dootul am <laughs> yaakaarul ci ñii dafa jël armée bi ak police ak gendarmerie yokk seen dooleeg matuwaay mm-hmm. nee moom ci ñooñu la yaakaar pour toog Ousmane Sonko def ni ko man peuple bi laa yaakaar. Mm. ne ko man armée bi ak police ak gendarmerie laa yaakaar. ñoom ñaar bokkuñu jëmiñ xam na ñii duñ ko topp waa APR yi moo la gën a xam ni lekkukaayu xaalis lañ ko doon doyee lekk na ba suur fër ñoom ñu lekk ba fër. cour des comptes topp leen santi nañ buy coow di am ñoom ñëpp daw laax seen suuf lan la jërëjëf am moo tax mm. ma ma daaneel la quoi <laughs> di wax ni une politique lii ñu def ab opposant mm-hmm. xëy na amoon na sax ci jamono Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade mais defoon nañ ni jeex na. maanaam léegi mais mais jëlal parole oui ma xoolal jamono ji. Ah, mais c'est que ah, il a parlé xam nga xam nga tey. maali Gakou mu ngi tourné le double de moi. est xam nga ni Malick Gakou actuellement mu ngi def tournée ok est nga dégg benn gendarme bu topp maali Gakou. ah mais yéen seen projet moo tax ñun suñu tee débat xoolal bu doon bu doon manifestation la ñuy tere. suñu tee débat tee débat dañ ko tere. Mhm. journée de formation dañ ko tere. ñoom xuree si bërki démb am na autorisation chef de quartier bi ci buntu ko ñam installer cellule cellule mhm. mu ne donc y a un projet d'épuration politique d'un parti parce que xam na ni parti bi man li may wax rek waa Pastef foofu gis ngeen président Macky Sall coono gi mu ñuy teg ak mhm. dal yi mu ñuy teg mooy wane dara nañ ko am lecture boobu mhm. ni président Macky Sall su yaakaaroon ci procès aji Sarr pour tëj Ousmane yàqal Ousmane Sonko bu ko soxlaa danaan ko boo bëggee pale demal nga meeting fa mais xam na ni munu ko tëj ci yooyu. mu créer ko bii. beneen bi ma ni leen semaine bu ngeen toog te président Macky Sall ak waa APR teguñu ay ndëgg sërax ak dal suñu kaw semaine bu ne. Mhm. bu ñu tegalul dara pour dal suñu kaw nañu xam ne ñun suñu projet bi nekkul ci dëgg. ok jërëjëf parce que nekk ci dëgg moo tax muy dal suñu kaw. merci merci Amadou dinañ ko duma. merci Amadou mu ñëw ci mais bi pas euh, da ngay tourner affaire yi de. Euh, euh, manifestation bi ah. Euh, ci diggante préfet mais aussi li amoon du fi amaat la ñu waxoon. Hmm. mais li xew Mbàkke nuru na lu am lu ko euh, lu xaw a lu xaw a nuru aussi. Euh, merci Mass. en fait man je crois que.